Fallou Benjamin daal di woote nga xam ne mooy ab ndogu kenn dootu ko présenté dañ koy bàyyi rek mu nuyu internet yi nga xam ne ñu ngi si daan Fallou ñu ngi lay ziar di la ndokkeel ci weeru koor yi. maa ngi lay delloo ziar ah, di leen eh, kontaane bu baax ci seen déplacement di ko rafetlu bu baax a baax aussi ah di leen baalu ak di leen baal di nuyu ñi ñëpp leen baalu aussi di leen baal di ñaan yàlla boole ñu jégal te def jàmm ju bëree bëri ci Sénégal ci barke Sëru Ramadan. alhamdulilah ñu ngi koy gérer ndax am na jour bu <laughs> eh, nag moom koor eh, eh, bi ñu nekkee ndaw lañ ko tàmbal suñu bopp te foog naa aussi xaaruñu tam bu weeru koor safar dañuy woor ah kasu rajab dañuy woor suñu bés bu ñu juddit bu dellu see dañuy woor donc euh, waaw gis nañ ko. ñu <laughs> gis sax at nga woote ko euh, te saa su nekk rek dañ ciy gis avancement yi nga xamante ni vraiment daf koy am ñu bëggoon xam yaa ngi ci ñaata édition parce que daaw ñëw nañ fi waaye gis nañu ren dafa yokk. waaw euh, macha bii mooy sixième édition bi yokk bi tam man ba léegi dama koy man maa koy defee nii rek mais sax mën na ëpp nii saa yu ñëwee bu jàllee samay nit woo ma mer ñenn ñi wax ñenn ñi nangam parce que du mu bëgg di déplacer nit ñi. Euh, koor ku ne xam na ni ku ci nekk da ngay bu jee ñun musiciens yeeg suñu suñu monde bi ñu nekk ñun retrouvaille la ak sa famille ngay yendoog ñoom di ndogoondoog ñoom di reerandoog ñoom comprendre nga parce que joué ju du am concert du am am donc euh, gars yi dañuy seen moment de noppalu la ñu ci bari damay bëgg di leen noppal parce que ñun dañ koy def pour ñi nga xam ne néew di doole ak ñi nga xam ni dañuy war ba am problème mu ndogoog yu demee noonu mooy tax ñuy tànn bi si mel nii di ko def xam nga euh, euh, defar ay xéewal ba mu doy di ko séddale di ko bokk ak euh, sunu mbokk jullit yi comme ni ko borom bi diglee macha allah loolu rek la yokk bitam tam yokk bi tam sama yaay maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér soxna xari njiit koy commencé ak ay ginaar moo ne ñu di ngeen dem ba mu doon ay nag donc ñu koy wax ni moom it ñaanam nangu na macha allah yàlla fi yàgg te wér ñu ànd di ko def ak bépp yaay. ak nga koy nga xam ne ci la Cheikh Ibra ñu taamu ñaar fukki fan yi loolu la rek maanaam bés la boo xam ni murit dëgg da koy xam nga bés la boo xamante ni ah ku ne xam na boo boo déggee léeg-léeg yi di wax ba tudd ñaar fukki fan ci weeru koor sa xel day dem ci maam Lam Fall ak Xaadimal Mustafa donc bés la boo xam ne bés bu rafet la daal moo tax ñu tàmm ko di ko def gis artistes yi presque ñu bari wax ni euh, léegi ndogu da ngeen ko jël def ko phénomène euh, mën naa wax que ni acteurs yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy musiciens yi chaque at dañuy def li nga xam ne moom mooy ndogu dem nañu ba ci ñeen ñi nga xamante ni ci application la ñu siiwee muy TikTok di ko def lan moo tax euh, seen social ngeen yemale ko rek ci weeru ko waaw loolu tam Euh, loo xam ne la jàngale la foog naa pour ñenn ñi nga xam ne dañuy gis artiste rek wala nitu showbiz jàppee ko nitu sawara comprendre nga ñun ñëpp ku ci nekk rek bi nga juddoo jàng ba nga ware a école def nga li nga war a def fonk nga say waajur déggal nga leen waaye nag ku ci nekk bu doon tracé yoonam mu neex ñun ñëpp ku ci nekk ñii dañuy jege suñu borom nattu leen ñu doon ay musicien ñii doon lii ñii doon lii kii doon tailleur kii doon lee mais euh, lépp a gën foog naa sàcc jëlee fu jàmbur mbaa fen mbaa rey nit mbaa triande wala dara musicien artiste ak euh, artiste daal ci ci moo mën a leerale euh, du la teree doon li nga doon mbubu la bu ñuy sol comme ni waa ji di solee costume am dem bureau bu wàccee suñu ko comprendre nga ñun tam aar bi ñuy def suñu liggéey la bu jotee ñu dem def ko ci fulla nag ni mu gën a naayisee suñ ci jógee dellu nañ suñu vraie vie waaw noonu la demee waaw waaw waaw waaw waaw loolu loolu moo tax ni ma gisee gars yi di ko roy comme ni nga ko tuddee phénomène ñu bari di ko def j'en suis très très fier waaw léeg man heure yi may dem sport ay ay 17 heures laay dem mais su may dellu si balaa may jot sama kër rek balaa doo sa oto fu mu jaar ndax nit ñi dañuy baare tali di joxe ndog ñuy joxe café ñuy joxe tàndarma da ngay fier ci réew mi da ngay fier ci nekk sénégalais macha allah yàlla yàlla gën fi saxal jàmm ci ci waaw ci ci réew mi daal. macha allah mm. alors buñ fi mm. ak waaw ñun moom foog naa waale lu mu def rek ñu ngi ci biir waaw lu mu def rek ñu ngi ci biir waaw te kili boobu it jàngale la rek rôle artiste la def mooy artiste bi bu kontaanee dafa war di bégle di jàngale bu bu amee leneen it dafa war di bégle di jàngale loolu nattu la loolu mooy rôle euh, euh, foog naa tey ku ne xam na carrière pas facile ci yoon yoonam boog début mu metti loolu mu dund ci lu nekk jaar ci lu nekk mais lépp muy bës xolam waaw li nga koy gis muy fecc ree xam nga ne ci kaw seen bi di di di joxe a fond mais kenn du xam o foo lan la wala nangam sangam comprendre nga loolu mooy artiste bi loolu moo moo lay wax ne li ma sànq ni bi ngay sol lu mu am am naqar non bu bu bu liggéey bi jote day day sol mbuub bi nekk artiste bi su paree delluwaat li mu li mu war a nekk ku xam ne bi yaayam di tawat mi ngi doon jouer gars yi dañ koy forcer muy jouer mais boobu euh, euh, da mi seetaan doo xam doo comprendre dara da koy joxe ni mu ko war a joxee lii yëpp lu koy metti wala lu mu mënti doon ca biir la ca ginnaaw waaw. Euh, dañ fi teew ngay def li nga xamante ne moom mooy cant après ndogu bi nga xam ne da koy servir. mais duñu gis ki nga xam ne moom mooy euh, le Faramareen Wally Ballago Seck euh, sénégalais yi tout le temps dañuy laaj lan moo tax saa su ne booy def sa bis bile euh, duñu ci gis Wally Ballago Seck ndax mën nañoo xam lan moo tax ñëwul ci mooy li wala sànq rek <laughs> sànq maa ngi lay wax ni la xam nga tey musicien Ramdan gisoo leen fi comprendre nga mooy li ma la wax la gars yi man maa dañuy kaas tax Fall doo woote wala boo jàppee bis bi doo ko wax nit ñi man leen bis bi di pour yéen bés bi dañ koy def pour néew di doole yi comprendre nga maa ngi gis même awa awa euh, euh, banaya maa ngi gis euh, geste bu toll nii mu def ko xale bu ndaw mënoon a jël alalam def ci leneen wala mu dem def ko feneen comprendre nga jot mu def lii lu rafet jël ànd ak ay nitam ak i mbokkam joxe ndogu teral waa koñam teral néew di doole yi xam nga mais da nga euh, tey bi ma yoroo ma gis benn image TikTok ñuy def comme si genre nit ñi ñëwuñoo nangam sangam est-ce que waaw ñoom lu leen wax ne aw dafa woon nit ñi <laughs> aw xam nga da ngay xëy nga def sa bâche parce que temps yi dafa sedd da xëy def sa bâche fekk say xéewal ñiy mu mbedd mi ñooñu ngay jox ñu ndog ak sa waa koñ ak sa kër say xarit koo ci ku ci yem rek mu ndog mais tey bu doon lu ñuy woote la wala bés bu ñuy préparé di woote pour mu bari nit xam nga <laughs> day demee neneen comprendre nga il faut tam ñuy encourageante ci lu baax xam nga bu fekkee nit ki bu defee lu négatif nga wax ko ko boo gisee mu def lu baax danga koy encourager waaw mën a jàpp xanaa ñaar fukki fan ndax même bu dee woowuloo ko ku ne xam na ni euh, sëñ Fallou ñaar fukki fan ci weeru koor dafay def li nga xamante ni moom mooy cant ak ndogu jàpp naa ni Wally Ballago Seck mën na ko mën a jàpp comme man ni ma ko jàppee te bokkuma farama. Wally dèjà fii may wax ak yow mu ngi France nekkul Sénégal. comprendre nga bu dee itam yiy passé yëpp dooleem lay yëkkati joxe mu ci yeneen parce que mooy li ma la wax tey bu ma soxloon mu ñëw man Fallou bu ma soxlaa mu ñëw tey déplacé wu ñëw lépp lu may def woo ci waali soxla ko ci balaa ma ximmiligu giseen ko mu taxaw comprendre nga mais lii woowu ma ko ci inauguration yi la a sawar ka dem ci cant inauguration yi waa inauguration yi dañ ko ci woo si mooy ba ñuy inauguré dem nañu ku ci mel ni euh, Omar Cheva dem na waaye Awa Bane yaa def na cantam demul yow nga def sa cant demul est ce que du ñu nekkoon Wally Seck ci inauguration yi la gën a sawar. yow yow léegi yow loo dañoo yëgul wala <laughs> ah, a wax kon inauguration yi dañ ko cee woo yaa ngi dégg leneen loo foo dañ ko faa woo man Fallou Benjamin maa ne la woo ma Wally fii tey awatam boo demee woo noonu la demee rek. waaw waaw waaw xam nga tey eh yéen daal si yàlla suñu borom <laughs> yàlla <laughs> ah du may répondre parce que tontu naa gis nañu awa bi muy def cantam faramaaree ni demuñu sénégalais yi posé question lan moo tax awa di def cant gisuñu fa kenn koo xam ne taqe na wala mu laale faramaareen ba ci yow mi euh, ñu bëri dañu jàpp que ni maanaam euh, booloo bi nga xamante ni dafa war ci seen diggante dafa des euh, lan ngay tontu. faramaareen ramtaan bu ñu booloo loon duñu agsi ñu waaw am loo xamante ni ay nit bu ñu boolowul mënuñu ko def non non ñu ngi dem di dikkale waaye bu ñuy demante lan lay lan fa waaye gisuma la gisuma ñeneen ñi nga xamante ni faramaare lañu. veille bi déggante nañ maak awa journée bi déggante nañ maak awa du question déplacement ak ñi mu taxaw tey yaa ngi nii da nga fi gis awa. te démb rek ñu ngi dé ñu ngi déggante du question maanaam lii ma waxaat la ko du pour suñu dox mbokk déedéet lii dañ koy def. pour ku ci nekk sa koñ fa nga féete secteur ba nga féete nga teral say nit say mbokk say xarit yaa ngi dégg ak képp koo xamante ni dox na bay yam ci bëggoon a ndogu amul lu mu ndogoo mu ndogu mu xéwlu loolu kese la non encourageante xamal la mooy déggante bi ñuy déggante waxtaan bi ñuy waxtaan ku ci nekk sa morom lu mu nekk xam nga ko waaw ah. encourageante nekkul ñëw taxaw nit ñi gis la de loolu waaw. Ah. Wally Ballago Seck eh, wax nañu ne dafa daal di créer benn studio boo xamante ni salle de répétition la ko def boo xam ne dina dina leen soxal alors ak polémique bi nga xamante ni jur na ko ñenn ñi ne peut-être Wally Seck daf ko def juste que pour wane dooleem ñenn ñi ne Wally daf ko def pour ñaawal waa Subateel lan ngay tontu ci loolu. ñenn ñan la ñenn ñooñu ñan la. waa waa waa léegi dama lay waxaat mu leer fii amul lu fi nit di def te du am li nga wax nii ñenn ñi gisee ko nii ñenn ñi gisee ko nii loolu moom kenn mënu ci dara réew mi senegal dem nañu sax ba ñuy wasifa ñun leen yéen pourquoi ngeen di wasifa am na wala amul du gis ngeen ko fii amul lu nit di def te am ñu ko gisee négatif am ñu ko gisee positif yow nag li tax ngay def yaa ko xam bu dee sa borom a tax ngay def yaak sa borom xam ngeen. waaw ah, loolu ngay dem laaj ko Wally ah, mu tax mu def nga wax Wally def du Benjamin yow laaj ko Wally gis naa lan gis naa lan non xam nga tey tey Wally yéen foog naa vidéo boobu sax seetaan ngeen ko Wally wàcc na dugg ci studio bi ñu koy présenté ku def nu ñu koy présenté Wally dafa am ñu ko gérer ay mbiram dafa am ñoo xam ne ñoo ne ci ginnaaw di defar ñoo ñoo defar décoré ba mu rafet ñu woo ko ko kaay xool yéen gis ngeen Wally ñëw ci di xool di sigi di xool diw mooy nii diw ngi nii diw ngi donc loolu rek pour beneen ni xanaa du moom moo doon def alors euh, ban réponse ngay joxe tey ci li nga xamante ni moom moo am ci diggante Wally Ballago Seck ak Adamo euh, parce que nag yow itam fan yi passé gis nañ la nga def benn sortie di dal di dal ki nga xam ne moom mooy Dame Sène ne le fait que lan moo tax mu génn di wax ni Adamo bu dalee ci kaw euh, Wally du ngeen génn tontu gi ni mel mu naqari la gis nañu Adamo dal na seen patron muy Wally Ballago Seck lan ngay tontu ci loolu. Dame Sène musuma dal ci kaw damaa wax sama gis-gis rek. dama dama ko xamal parce que dafa laajte lu tax aadama moo wax waa Ramadaan waxuñu ma ne ko waa ci lépp la ñuy wax du lu jóg rek ñuy wax dama ko toon waaw mais daam sama xarit la sama frère la sama mbokkum taalibe la dañuy déggoo waaw moom li mu dal ci dafa doon takk euh, te moom mi nga xam ne moom mooy waale aadamoo fu nekk taxawu na ko fa lu nekk jàppale na ko mu am bésam waale xebal ko ko ñëpp def vidéo ba mu des. waa léegi yow fi mu ne nii génn nga koor génn ndogu génn sëwru Ramadan ah <laughs> yaay wax leneen yow bañ nga ba da nga ni fan yi paase nga wax li paase nag paase na mais est-ce du tey li nga def nii day répondre ñi nga xam ne dañu naan daan amuñu fit tontu Adamo rawatina suy suy jàll baat Wally waaw waaw dañ ko ragal waaw ko dañ ko ragal. da laa yoroon audio. waaw dafa yor suñuy lomotif waaw dañ koy ragal loolu la. waaw ci tontu après mais après koor gi waaw waaye non gis nañ gis nañ ma ci gis nañ ma ci tam def naa ko avec plaisir euh, Euh, mais pour tas ko ñu wax lu taxak ak ni mu demee ak li ma ci dugal loolu damay préfère ñu bàyyi ba après lii ñu jël benn jour ñu toog waxtaan ci ñoom aadamo ñoom lii lépp waaw euh, bett bi bette bi mu bette loolu moo loolu foog naa mooy ah artiste dafay ah, da da ngay teg surprise comprendre da ngay bette loolu la mais euh, li nga laaj baax na mais après laa ciy mën a tontu après laaj ci tontu. lu tax Wally demul Palais président Macky Sall honoré na Viviane honoré na ki nga xamante ni ah, moom mooy Mbaye Dièye Wally Ballago Seck def na album international vraiment sénégalais yëpp di ci coow président Macky Sall euh, honoré wu ko tey lan nga jàpp ni moo moo waral tey ñëpp dem pale mais Wally Ballago Seck bokkul ci ñu dugg ci biir palais. waaw mais sànq ci sama biir wax mi ngi France ni may wax ak yow nekk fi. loolu tam ba tey question Wally la loolu Wally ngeen koy laaj. en tant que koo xamante ni acteur nga ci biir Ramadan tey loolu deful dara si en tant que Faramareen xam naa ni euh, président Macky Sall papa Waly la te sekk nañu lu ne sekk nañu lu ne Waly euh, Waly Sénégal Waly àdduna ñëpp ko bokk waaw fu ngeen gisul Waly rek xam leen ni leneen la waaye du dara waxtaanoo ah. le 27 pour 6 waaw ñu ngi waaj bu baax a baax a baax waaw gars gis lu bees tàkk waaw lu bett ñëpp mm. waaw incha allah. lu ñu koy honoré. da nga jàpp ni. waaw dafa jàpp ni waal def fi loo xamante ni vraiment war nañ ko mën a takkal daal. waaw fii Sénégal kenn daa mën a def dara ci artiste tëgwaale waaw moo tax man la yow jëlee ko positif rek waali néew fii dèjà waaw ku la ne woowu ko <laughs> ku la ne woowu ko léegi mi ngi France nekku fi mën nañ ko woo duñ ko jot wala ñu woo ko jot ko te du mën a bàyyi ca parce que xamoo lu muy def France. Euh, yàlla suñu borom may ñu kooru jàmm kooru xéewal kooru sutura ah dugg nañ ci ba tey la ñaar fukki ñu gën a kàttanal. ñu mottali fukki yi mu nangu ñu lépp luñ ko jaamu waaw ñu ko doon defee rek jóg dox dem ba taliba partagé te gaay ak suñuy mbokk ak suñuy xarit suñuy fans waaw di gërëm waa Benjamin Family parce que tey lii ngeen di gis yëpp Fallou Benjamin da ciy ànd rek waaye fans club la boo xam ni léegi ñu def ak man dix ans xam nga ànd man safar weeru koor lépp ñu ànd ko man ñooy def seeni i cotisation ñooy jënd seen i nag ñooy jënd seeni i xéewal ñooy jënd seen lépp gërëm président bi maas kooki di gërëm tamba présidente BS Family Diaspora Max Lalion di gërëm euh, Euh, ñi ci groupe di gërëm Benz Family tam ñi ci biir ñi ci biti ñëpp kuma ma gis ak ku gisul ñëpp maa ngi siyaat ñëpp di bëgg ñëpp di bëgg samay soppe di leen wax ni tamit Fallou Benz Family mi ngi waaj bu mag incha allah muy laa nuit di Marimba fii ci arène nationale incha allah waaw fii ci arène nationale waaw daa rëy incha allah maa ngi ciy woo ñëpp di wax ne nañ ko wàcc ñu ngi ci koom euh, léegi léegi bu ci kanamee euh, dinañ ci commencé communication bi ba ñëpp ñi ko war a jot jot ci incha allah waaw. merci beaucoup